ginnaaw bu ñu ñaanalee sëriñ Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadinil Basir mu yàgg fi lool te gën a wér di ko ñaanal njabootu sëriñ Touba gépp ak dong yépp kon ci gàttal képp ko fi teewu ñu ngi lay nuyu nuyoo bu gën a yell ci sa jëmm ndax sëriñ Seexuna mi jël kàddu gi léegi mu sëriñ Seex Pend Buyo bu Cheikh Mouhamadou Jaaratullahi Mbakke wax na lu jëm ci loolu waaye nag Cheikh Abdul Karim Mbakke Fadilu mi ngi leen di nuyu yéen ñëpp ndax li ko waral bari na buñ ci doon tënk benn rekk doy na sëkk bokk ci yoon wi bokk ci ñi bëgg lépp dem ci ànd ak mbaax ak jub tam bokk ci beneen mbirit soxna si nga xam ne mooy soxna sooda xuma li ñuy wooyee jëwrin di gën a diggam ak sëñ Touba sëriñ Abdul Karim moo ko doon ci at yu yàgg yàgg soxna Sooda it moo ma wax ci làmmiñam léegi ne ma dafa siyaare sëriñ Muntaxa ndax moom ku rafet taxawaay la ndax ni ñu ko gën a xamee mooy yoonu géej gii ngeen gis soxna yi ñu ko jiite ci la bokk moo ko jiite di ci dox doxinu rafet sëriñ Muntaxa ci yëg pëstéefam daf ko nuyu ne ko soxna sooda mu ne ko du sooda yéen ahlu suhadaa ngeen mu ne ko lan mooy ahlu suhadaa mu ne ko mooy ñi jeex takk ci yoonu yàlla muy muy shahid suhadaaw di martiir koo xam ne daa dem ba yàlla gërëm ko ba dara toppatu sëriñ Abdul Karim nee na mi ngi leen nuyu bu baax nee nañu fi teew ñépp ay doomi sëriñam lañu ndax moom day waxoon na bu yàgg ni yoon wii nu nekk nee na moom sikkim la sëñ aboo mooy geesu yóbbaale ko waaye nag nee na tey ginnaaw yàlla dafa dogal ki nga xam ne moo taxaw ànd ak ahlu shuhada ñépp ne day taxaw liggéey barab bii nga xam ne moom la ñuy wax restauration bu ëllëgee ñi fiy jàngee foofu lañuy ñuy xéewloo yàlla boole leen seen diggante ci diggante sëriñ ak ak ak ak kon day baax lool tey kàddoom jib rek ngir loolu mu yebal soxna May Mbàkke laxat waaye nag ma leen di xamal ne gis naa fi turandoom soxna May Lahat gis naa ko mu nuyoo léegi kon moom day dëxëñu ci biir loolu ndax kilifaam a ngi fi bu loolu jàllee soxna Fat Bintu Puy Mbàkke sëriñ bi boole leen yebal ngir ñu teew fii ngir jëmmal soxna Soodu Xumoon ci sama ginnaaw Serigne Mbacke ibnu soxna may mutatu Fadilu ñu ko wax soxna may galas mi ngi ni toog ñu ànd ak soxna may mu maam Mati Mbacke mu Serigne Fallou ànd ak it mag yi soxna soodu xuma muy sëriñ Ousmane Xumba soxna Sooda nee na bu demee ba war a xam dara lu muy jëfandikoo ci yoon wi nit ñi di ko xam ne lu jub la nee na mi ngi koy santee sëriñ Abdul Karim bu baax a baax a baax ndax nee na moom la àndal loo xam ne daanaka soxna May mii mu yebal bi muy jébbalu ci sëriñ Abdul Karim boobu soxna May mi feeñagul te mooy taawu sëriñ bi ci jigéen kon loolu yàgg na trop man de sëñ Abdou moo ma wax ci làmmiñam ne ma ndax fekk da koo siyaare soon ku ku rafet ay jëf la nag sëñ Abdou Karim ma xamal leen ko tey daf ma wax ne ma da koo daf koo siyaar si mu toog soxna saa ngi toog de mu ne ma galas kii ba muy jéblu ci man mi ngi ma fekk ci kër sëñ Fallou ga ca Ridis may bind kaamil jamono yooyu nee na booba la ko waraloon mooy soxna si dafa génnoon di liggéeyi booba ndaw la daal ne doomi sëñ fàllu ji ne fii de danaa fi jaar tey siyaare ko nee na jublu wutoon jébbal sax da doon siyaar rek nee bi mu gisee sëñ Abdou Karim rek xelam na ci moom mu ne ko yow daal laa bëgg nga doon sama sëriñ sëñ Abdou Karim moo ma wax ci ne ma ba mu jébbaloo ba génn defewoon naa dellu si ndax bi ma ko xoolee daf muy màcc rek koo xam ne li ko ñor mooy nu muy lijjanteem xaalis danga ko ñor nee jëmm ji loolu la ma jox waaye nag bi mu àndeeg man boobu ba léegi nu ab taalibe war a doxee diggam ak sëriñam rek mu ngi koy doxee ak man ca biir loolu nag ci la amee ay xam-xam ba dem ba jiite fi yoonu géej gi ba ñuy defar université bu mag bi sëriñ Mountakha di ko defar muy sor wu ñu ci yoonu murit ndax yoonu murit ay sor la ku ñëw rek am woo war a lemmi sëriñ Mountakha lemmi li ñu ngi koy ñaanal mu lemmi sor yu baree baree bari ci ñaanu maamam googee bil Moustapha li banal xudduusu madrasatan bihaa yalu bihaa yazulul aza wal jahlu wal kabadu ñetti point yooyu rek moo ko ñor mu jóge ci doomu aadama yi lori kaw ak xamadi mooy ñàkk xam ak coono yoo xam da ngay lëjal sa bopp lëjal nit ñi moo tax sëñ bi ñaanoon école bi yàlla defal na ko ko tey ci kàttanug yàlla jaare ko ci Serigne Mouhamadinil Muntaxa ginnaaw bu Serigne Abdoul Ahad waxee woon ni danaa defal sëriñ Touba jàngukaay boo xam ne fu waay jóge loo bëgg a jàng di ko mën a jàng la kenn ku ne bu ñëwee day sox foofu rek wéy sëriñ Abdou Karim daal nee na na ngeen xam ne bég na ci taalibeem bii nga xam ne moo xalaat xalaat yii kàddu gi lépp nag ci loxo soxna May la ko teg ak soxna Fat Bunt Puy sëriñ Abdou Karim na ko ah ginnaaw nag sama doomi sëriñ yi kat yaa leen ñemee yëkkati leen dajale ci aw naaj kon xaaral ma defar ay xéewal yot leen ko buñ demee ñu mën caa serlu loolu nag yéenee sëriñ bi la sëriñ Ahmadul Badawi daal noonu la ko sëriñ bi waxee woon sëriñ Basiiru ñu ngi lay siyaara bu baax di ñaan li ngay taxawal sëñ bi nga taxawal ko bu baax a baax allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim